dafa tolloon ci di wax li ñuy tudde alxawsu wala alxiyaazatu te mooy nit yore dara ne moo ko moom te lañu mën a jàppandi ba gis lu ko dindi mooy moo ko moom mu jàll si nag ci al istihqaq istihqaq mooy am ku ñëw fekk keneen yor dara mu ne ko lii yor day maa ko moom daal taxawal ay seere yoo xam ne nga yoon moom gise mooy waris naa nangoo loole ci ko yor jox ko ki nga xam ne moo taxawal seere yi loolu moo tudd al istihqaq moo tax ibnu xarafa di ko xamle naa huwa rafho milki shay'in oti milkin qablahu awil xurriyati kadalika bi gayri xiwad al muddahi aj woote ja istihqaaqa shay'in yeyoo dara yulzamu def na ko waralal bayyinatan seere musbi tatan ji di aji saxal maa la ne yazumu dana ko wax min gayri taklifin ci lu ak togg li man ñeel ki nga xam ne tamallakahoo moomoo na ko min xabisaa ci jëkk lii ci ay wajhin ci gumu ci anam malakahoo la ko moome wala yamina dem ngiñ fi usulima ci cosaani la nga xam ne istaxaqa yey na ko wala ustuxiqa yeyeef na ko waaye xequ dana yey fii siwaaha ci lu dul cosaan ya qablal ihzaari ci njëkk dagg lay wa mu ne bu kenn taqee ci lu keneen yor ne maa ko moom kooko ne ko déedéet moomoo ko man mii ko yor maa ko moom mu ne kon dañuy wax ka yore ne ko yow téyel rek jàpp ne yaa moom moom mi ci bëgg a taq na taxawal seere su leer su leeral ne ca dëgg-dëgg moom moo ko moom ñu daal di wax nag kane moom moom lii ne ko yow nag kon da ngay taxawal ay seere yu mat sëkk ni ko yoon bëgge ñu seereel la ne lii yaa ko moom sa alal la joo xam ne bañ ko xamee nga moom ko ak fi nga ko fekk tey taq ci mat na fukki weer ba ëpp ko te boobaa léegi gisuñu xamuñu leen lu ko war a génne ci sag moomeel bu ko seeree seereelee loolu wala bu dee jamono yoo xam ne ci ay kayit la ñuy sukkandikoo mu wane ay kayit yoo xam ne daal mëne succaa toppal dara dara dara ñu door a wax nag ko yore woon loolee ne ko ah yow kat yoon a ngi lay bëgg a jot ndax li seere yi seereel kii ne moom moom lii nga yor man nga cee dindi dara wala boog kayit yu mu indi muy kayit yu leer ndax man ngaa wax lu ko dindi bu ne man day wax dëgg yàlla mënuma wax lu dindi lii loola kon leer na kookee taq ca loola moo moom loola ndax nag dana aajowoo mu waat boole ca wala du aajowoo mu waat boole ca wax ja gën a wóor mooy bu dee suufa du jar muy waat boole ca ndax suuf moom na muy bàyyi ko cekkee dem cekkee li ci ëpp du nekk lu ñuy ëmpale ndegam loola suuf la daal te saxal na ci seere mbaa ci ay këyit loo xam ne yoon moom mënu caa xeeba dara te kim ko seqalit nee na ko wax nga dëgg kon du aajowoo muy waat bu dee nag leneen lu bokkut ak suuf moom day aajowoo mu waat boole ca bu ñu nee nag loola du suuf ba moom mi am dëgg day waat boole ca te am ñu wax ne bala ñoo dagg layu ka yore woon loola lay waat am ñu ne gannaaw ba ñu daggee layu ka yore woon loola ba àggal lay doora waat taalifkat bi moom xablal ihdaar la wax ànd ci ña wax ne day waat bala ñoo dagg layu ka ko yore woon waaye lañ gën a sukkandikoo mooy gannaaw ba ñu daggee layu ka yore woon loola ba àggal lay doora waat bul fàtte ihdaar dagg aw lay waxaan nañ ko ci gannaaw mooy ka yoon jot mel ne ñu ngi koy bëgg a xañ dëgg àttekat ne ko yow day yoon mi ngi lay bëgg a jot ndax mën ngaa def nenn ba teb bi lii ñu la bëgg a teg wala mënoo ko bu ne mën naa ko nag daal di koy may ab dele ne ko kon seetal na ngay def bu ne déedéet aw ma menn pexe nag kay yoon jox dëgg mooy daal di waat waat ci yàlla ne lii day moo ko moom te bam ko moomeeg léegi amul dara dara lu ko war a génn ay loxoom ba nii mu taxawee nii di waat day wax billahi allazi laa ilaha illa huwa ma baaxa ashaya almustahaqa wala wahaba wala xaraja xan milkihi bi wajhin ilal aan li anna albayinata shahidat xala nafil ilmi fa yaxlifu huwa xalal bat wa xaysuma yaquulu foofu xam ne dafa wax ne maa lii déddi ma ñeel ma dafa am benn jiñukaay foofu wa kon moom yar jeexu day dellu xalaaman ci ka nga xam ne baax a jaayoon na minhu ca moom ki yoroon dara am ku ca taq taxawal ay seere seere seeral ko ne moom ci dëgg-dëgg wax na dëgg moo ko moom ñu laaj ki nga xamee ne moo yore ci loxoom ne ko waaw ndax lii seere yi seere moo ma ne ko kii man nga ko toppale man ngaa wax a wax ba dindi loolu su ne déedéet ñii de liñ seere mënuma koo dàq dañ ko wax ne ko kon lii nga yore jox ko boroom mi nga xam ne moom la seere yi seere ne moo ko moom yow nag ndegam daa am ku la ko jaayoon dellul ca ku la ko jaayoon mu delloo la suñ njëg baa ngeen seet na ngeen di def ba in yokkun dem dafa nekk loxoo di ko ñeel maqaalun wax ujji la kon àppaleef ko fa in ataa ndéem dikkee na bi maa ci loo xam ne yu fiidu dana jariñ oome la kon jëf loof ko wamaa loxoo te te di ko ñeel rojoohun gennum dellu xalil lësi ca ka nga xamee ne kaana nekkoon na loxoo di ko ñeel almabiixu njaay ma fii xaj si ca lottam nga buñ ko nee waaw kii day taq na ci li nga yor taxawal na ay seere it ñu ko seereel na ci dëgg-dëgg moo ko moom ndax yow man nga dàq seere yooyu bu ne waaw waaw man kay buñ nu mayee ma leeral ne seere yi waxuñu dëgg man maa ko moom àttekat da koy may delle ne ko kon may naa la li fekk sàngam nga seet ba xam nooy toppatoo mbir mi su ko mayee dele nam ko ko war a mayee bu aajowoo yeesal mu yeesalal ko ko ba xam ne nag moom mi daal ci bëgg-dëgg dafa tële li waxoon ne mën naa wax ba dàq li seere yi wax ba tey yëfu mënu ko da koy wax ne ko ca dëgg-dëgg daal lii kii seere yi seereel ne moo ko moom moo ko moom yow jéem nga jéem tële nga su boobaa nag moom mën a dellu ci ka ko jaayoon ndax moom daa jàpp ne la seere ya seere woon ba nar koo génne ci ay loxoom dara amu ci woon da ko doon jéema lijjanti nag ba tële ca waaye daa mel lim jàpp daal mooy léegi ba tey seere liñ seere du dëgg moo tax kon buñ ko may mu dellu ci ka ko jaayoon naa ko la nga ma jaayoon am na ko ci taq ba yoon ne ko yaa ko moom wal aslu cosaan te mooy suuf ak la cay taq laa tawqiifa déetub taxawal fii muy nekk ci moom illaa maha shubhatin ndare mu ànd ak am lënt koy firi lënt nag waaye mooy lu nuru dëgg xaw yi yetin buy aji dëgër tajallaa boobu dana feeñ tajallaa dañ fee dagg beneen taa te tajallaa la woon la nga xam ne ca la koo ko taq ne maa ko moom bu dee suuf bu nee maa ko moom kat te diw mi ci nekk dañ ko wax mu téye loxoom bañ cee soppandikoo ci dara dañ koy wax ne ko lay tax de ñu def li nga wax wax diw mi ci nekkoon ci suuf si ne ko bul ci soppandiku dara mooy rek nga indi lu dëgëral say wax loo xam ne neexuta toppale loolu nag mooy yett yi lu mu ci def indi yaari seere yu maandu ba indi wala mu indi yaari seere yoo xam ne dane mat nañ seere ñu ne ko nag dangay teelu bañ seet ñu leen xam ba wax seenug maandu wax seenug mat seere mbaa mu taxawal benn seere bu maandu te amul bu ko ñaareel yii lu ci nekk firnde ju dëgër la su ne suuf si maa ko ba noppi def lu mel nii daldi ne ki ci nekkoon kat dañ ma téyel loxoom bu mu soppandikoo te ci suuf si ñu ne ko wax nga dëgg waaye nag li fekk defut lu dëgëre noonu dikk rek ne suuf si maa ko moom daal di bëgg ne dañ ma téyel loxo yi ka ca nekk du tax ñu daal di téye ay loxoom wa bidaa wal muddaa yi daañu taxawal loola ci wootek aji woote ja bayyinatan seere xaadiratan su di aji teew fil mawdihi ci béréb ba fii siwal asli ci lu dul cosaan la mu taq ne maa ko moom te fekk mu nekk ci loxoy keneen su fekkee ne moom du suuf du du taq ci suuf day lu mel ne marchandise wala ak jur ak yu deme noonu su bëggee ne maa ko moom de kii ko yore nañ ko génne ci loxoom moom ci soppandiku dara nañ ko génne ci loxoom lay tax ñu nangu la wax de mooy ñu ne ko ana say seere ñu ne ñu ngi nii maa ngi leen andi léegi léegi nañ ma may ma andi seere yi su boobaa day ñu daal di wax ka yore loolee ne ko li nga yor kat am na ko ci taq te wax ne am na seere te mu ngi dem andi leen kon nag dañ ko def kupp téye ko ba xam bu dikkee mu muy def woomaa loo xam ne lëxoo ñeel na ko xayrun jëmm yushhadu def na seere xale xaa ca moom min xayawaa ñun ci aw ndundat aw xoroodin wala ay marchandise tuujat yooyu def na leen fekk bu kenn taqee ci dara ne maa ko moom nag ba taxawal ay seere ci kanam àttekat bi ñu seeral ko la mu wax ne moom moom bu loolu doonee loo xam ne mënees na koo teewal ci kanam àttekat ba seere yeeg ñëpp teew ñu ne jëmm ji kat nun lan seere ne jëmm ji ci taq moo ko moom xamlu daal lu koy génne ay loxoom ndegam jëmm ji day lu mel ne aw dundat mel ne xar wala bëy ak yu mel noonu mbaa muy xeetu marchandise ni ki rajo boolem daal yi nga xamee ne ma nga ca barab ba mbaa soriwut te mënees na koo teewal ca kanam àttekat ba àttekat bi gis ko seere yi jàkkaarloo moom ni jëmm ji lan seere ne kii ci taq wax na dëgg moo ko moom faawu kon indi nga noonu mu teew ca kanam àttekat baag seere ya du ca mën a ñàkk bu fekkoon ne nag ñu waxut a teewal foofa ndax dafa nekkut kon dañuy seere ci kaw melo ya ci ràññeel rek waaye ndegam moom mëne su ko faa teewal mëne su ko faa teewal rek mu des nag bu doon suuf bu doon suuf te àttikat mënta jóg ba àgg ca suuf sa ànd ak seere yi nga xam ne ñoo seereel ka ca taq kon lu ñu def mooy buyuk tafaa def na doyloo bi xawsil asli ci làq cosaan la al mustaxaqi lañ luñ yeyoo bi waaxidin ci kenn xadalin kuy aji maandu wal isnaani waaye nag ñaar a xàqu ñoo gën a yey ndegam suuf la te at kat mënta jóg ba tiim suuf sa ànd ak seere ya dañ ko wax ne ko yebalal ñaar ñu maandu ñu ànd ak seere yi nga xam ne ñoo seere ne diw mu taq ci suuf si moo ko moom ñaar nag moo gën waaye ba tey bu yebalee kenn itam nee nañu mu baax waaye li gën daal mooy mu seet ñaar ñu mu doy loolu àttekat bi ñu ànd ak seere nga xam ne ñoo seere ne ki taq ci suuf si kat wax na dëgg moo ko moom seere daal di wër suuf sa ànd ak ñaar ñu àttekat ba yebal mbaa kenn ka ñu ràññeel ne fii la suuf si tàmbalee fii la yem wannaa ba wóotu na xan xiyaasati shuhudi walis làquk seere ya tawaafuqul xasmayni dëppoog ñaari way xuloo ya fil xudoodi ca borna ya bala muy jar àttekat bi yebal ñaar wala kenn ñu ànd ak seere ya ñuy seet fa suuf tàmbale ak fa mu yem day fekk nekkutoon lu ñu xam bu wér ne bu fekkee suuf sa ki ko yore ci ay loxoom ne moo ko moom ak ci taq ba taxawal ay seere jubóo nañ ci ne moom mi ngi tàmbalee ci borno sàngam yem ci borno sàngam maanaam daal ñoom jubóo nañ ci ne suuf si nii la toll fi la tàmbalee fi la yem du jar àttekat bi yebal ñenn ñuy xooli banaa suuf si fii la tàmbalee fii la yam ndax moom ñoom ñu koy xëccoo juboo nañ ci fa mu tàmbalee ak fa mu yem lañ jubóowut kay mooy ki yore ko ne moo ko moom ki taq ci ne moom moo ko moom kon nag ki ci taq moom bu saxalee ci ay seere ay firnde yu leer rek àttekat mën naa àtte kon bu jaaree fa mu war a jaar ne ko sa suufa ngoog du aajoo mu yebal kenn ku seeti dara wa waajibun aj war la i'maaluha jëfloo làq googee i'maaluha xaabiri dellu ci alxiyaasatu inil xàkka mu ndeem àttekat ba xàkkama àtte na bi xismatin ci ak seddale xalal maxaajiiri ci ñañu yiir al maxaajiir jamu mahjuur la ñu seetluwaat ne inil xakam am na loolu ci daan wax waaye ñu tàyyi ko baamu ndax xëy na ñu bari dégg nañ ko ba tàyyi ñoo xam ne mënuñu weeg seen bopp dañ leen toppatoo rek mel ne gone ak koo xam ne mag la waaye bu yore alalam yàq ko su fekkee ne àttaka bi daa àgg ci war a séddale ay gone wala ñu mënteere alal ñu demee noonu balaa séddale bu fekkee ni suuf sax xamuñu woon ca dëgg-dëgg fu mu tàmbalee fu mu yem faaw dana njëkk a wóorlu bu dee lu ñu doon na ana kan moo ko moomoon ak kañ lu génn àdduna ndax génn àdduna nga wóor na bu loolu wóoree nag bu wóor ko ni ñi mu koy bëgg a séddale ñoom ñoo ko war a doon ba tey faaw mu yebal ñaar wala kenn ñu wër ànd ak ña xam suuf sa ñu wër ba xam ne suuf si fii la tàmbalee fii la yem atekat bi door a seet nag bu ko dee séddale ñooñee mu koy séddale kenn ku ne lu mu cay am loolu nag nee nañu da ko yemale ci bu ñooñu doone ay gone wala ñoo xam ne mënu yore seen bi ci bopp rek waaye mas na ko matale fépp fépp lépp loo xam ne àttekat bëgg na ko séddale ci xeetu suuf doonte sax am na ci koo xam ne moom da caa bokkute sori nekku fi nga xam ne moom moo ko war a teewal mook ay gone moo mën ko ñooyemoo faaw dana njëkk a wóorlu ba xam li muy bëgg a séddale ñi koy bëgg a séddoo fuñ jaar ba am sañ-sañu séddoo ko wóorlu itam ba xam fa mu dale ak fa mu yem doora séddale nag moom attekat bi waaye itam nag bu fekkee ne suuf sa muy bëgg a séddale fekk nañu xam fa mu tàmbale fa mu yem bu wér a wér kon la war a wóorlu rek mooy ñoom ñi mu koy bëgg a séddale ndax am nañu sañ-sañu séddoo koom déet moo tax mu naa wa in kaana maarufan laa yaltabisu bi gayrihi fala yaxtaaju ila xiyaaza wa kada laa mafhuma lil maxaajir bal gayruhum kadalik wa jaasa dagan na an yusbita bu saxalee milkan ak moomeel shuhada way seere wa siwaahum te ku dul ñoom shahida seere na bil xiyaasati ca làq ga in kaana ndem nekk na daa taswiyatin di boroomu tur maarufat nu di wuñu xam wa nisbatin akuk askan mashhuratin ku di kuñ siiwe maalufatin ku di kuñu miin li ñuy wax tàppi ay seere la ne mënees na ko mooy su fekkee ne ka taq ca suuf sa daa am seere yu maandu yu ko seereel ne wax na dëgg suuf si moom moo ko moom waaye ñoom nag turu suuf sa ci boppam moo siiw ñu mën a waat ne moom moo ko moom ndax baayam mbaa maamam moo ko moomoon te ca la ko doon ne waaye taxul nag ñoom ñu mën a xam fa suuf sa tàmbalee wala fa suuf sa yem day fekk nag turu suuf soosee siiw siiw goo xam ne aw turu dëktu la mel ne geloor bu dee turu suuf woo xam ne mu siiwa siiw la wu ñu xam la ay seere yu maandoo maandu mën a seere ne wër na leen ne diw moo moomoon suuf sa ci saan ay doomam ñoo ko moom fii mu nekk waaye nag ñoom seere yooyu kat mënuñoo wax nag fa suuf geloor tàmbalee ak fa mu yem bu amee nag ñoo xam ne nekkoon nañ fa ñu dogal leen ko ñu koy bay te ñoom xam nañu fa suuf sa tàmbalee ak fa mu yem dañuy daal di boole seere yee ak seere yee ñuy benn su ko àttekat ba toppee te amul lu ko mën a dindi mu daal di wax ña waxoon ne ñoo ko moom te am seere yooyu ñu daal di am dëgg jël seen suuf wa mushtaril misli yi aji jënd misli yu nga njëkk a jàpp nag baatub al misli yu mooy loo xam ne tey lu ñuy natt mbaa ñu koy peese mbaa ñu koy wàññi ma ne bu dee pepp ñoom daanañu ko natt ci ay jamono ceeb moom ba léegi peese gi moo ci ëpp lu mel ne ay nen duñ ko dee jaay daañu ko di wàññi lu mel ne ay xaal noonu loolu moo tudd al misliyu mahma yustaxaq saa yoo xam ne def na yey ba def na yeyoo mu wax vraiment la ëpp ci la nga xam ne ustur yi jëndeef na ko fat tax yiru kon tànn looga xàqun àqi aji jënd jëla fil ardi ci jàpp ga lil baaqi ñeel aji des ja minal mabihi ca lañu jaay bi qistihi ca cërëm ba maanaam ca lam tollool wa raddi ak delloo ga lil jami ñeel lépp wa in yakun ndem dafa nekk nag maa la nga xam ne ustuxiqa yeef na ko minu ca moom misli yu al yasira di aji néew yel zamuhu kon dana ko war nga seetlu ne yel samu mooy fixal jawaabi in te taxul ñu jasam ko yel zamuhu kon dana ko war al baaqi aji des ja bi maa ca la nga xam ne yaxiqu dana yey lëxoo ñeel ko day wax nag bu kenn yoree dara mel ne lu ñu ko jaay gannaaw ba am ku ca takk koo xam ne néewul lépp maa ko moom lee nga weesu woon mooy ba nga xamee ne ka ca takk daa wax ne lépp la moom li mu wax nag mooy la nga yor mel ne loo jënd daa am ku ca takk ne la nangam lii maa ko ci moom mu ne kon dañuy seet bu fekkee loola tey lu ñuy peese mbaa ñu koy natt mbaa ñu koy wàññi mooy gën a yomb lijjanti dañuy seet la ca kooku wax ne moo ko ca moom su fekkee ne bariwut te bariwut moom ni saraa bi waxe mooy ku ko defoon ñetti xaaj du mat sax benn xaaj ba mbaa da ko yées jëm suuf loolu lañ jàppe bu dee ci borom saraa bi moom lu néew te am nañu wax ne ceer ba ci boppam ak néew la ci nag moom daa wax ne bala ñu ne néew na da yées ceer ba kon boo toppee waxam la koo ko wax ne moo ko ca moom bu fekkoon ne boo ko defoon ñetti xaaj du mat sax benn xaaj ba kon yow mi jëndoon doo sañ a xaaj faaw day war nga téye la ca des loolee nga xam ne nag ca la koo ko taq ba yoon ne ko wax nga dëgg yaa ko moom ñu seet lañ la ci war a delloo ci njëkk ñu delloo la ko ca bi njëkk wax nag mooy bu fekkoon ne la ca koo ko taq wax ni moo ko moom dafa bari te bu nee bari gi rek mooy bu xësee mag boo ko defoon ñetti xaaj benn xaaj ba jëm kaw rek ak bari la ko jàppee kon yow mi jëndoon yaay seet bu la neexee xaj njënd ma bàyyi lépp ñu delloo la sa njëkk bu la neexee itam nga téye la ca des ñu seet lañ la war a delloo ci njëkk ñu delloo la ko am lay saraana yaani anna man ishtara misliyan wastuxiqa minhu mu'zamu wa huwa athulusu fa akthar wajaba alqiyaaru la fi an ya'xuza albaaqiya bima yanubuhu min attaman wa fi an yaruddahu wa ya'xuza thamanahu kullah wa in istuhiqa minhu liyasiru wa huwa ma duna athulus wajaba alayhi التمسك بالباقي بحصته من الثمن wamaa loo xam ne loxoo ñeel na ko at taqwiimu xayma ga bistixqaaqi anfasihi ci yey gën jaa fooram mbaa gën jaa sellam yu raddu def na ko xàcc bil itlaaqi ci ak boyal in kaana ndeem nekk na fi muayyanin ci lu ñu ràññeel wala yaxillu te du dagan imsaaku baaqihi tée aji desam ja mbaa nga ne jàpp aji desam ja lima ngir li nga xam ne juxi la réeréef na ko fii ci moom wa in yakun dem dafa nekk nag aqal lahoo di gën jaa néewam fal xukkumu kon àtte ba an yar jaxa moo di mu dellu fii xissat yi ci ak cëram mooy ci wàllam mina tamani ci njëgga dafa jàll si wax la koo ko jëndoon am ku ca taq ne moomu ma lépp waaye lii moom maa ko ca moom bu fekkee day mu xawam lu ñuy xayma lu ñuy xayma mooy safaanub misli yu bee nga weesu woon maanaam mooy loo xam ne dañu koy seet bu dee kuy jaay mu wax njëgg muy jaaye bu dee kuy xayma mu wax la nga xamee ne moo ci jaadu ci njëg waaye nekkul lu ñuy peese nekkul lu ñu natt nekkul lu ñuy wàññi mel ni am xar wala rajo wala kër ak yu bare bari ci yooyu nga xam ne noonu la demee lu mel noonu bu amee ku ca taq ne nangam lii maa ko ca moom te ràññeel ko bukkuta mu ne buñ ko defoon ñaari xaaj maamoom benn bi wala buñ ko defoon ñetti xaaj maamoom benn bi